général yi mo ci jug mhm. té boba at yu néew la am mhm. né ñu fi atak juroom ñaar fi atak juroom juróom-ñett walaay ndeysaan ci lé ci ci ci la toll mhm. yëfar bobu kenn ñëwu ko ndax doolé ak kàttan ngi ma amal waye keroog bi ni songo ba pënd bi wuri dañoo gis ya, Seydina Ali manam taxaw ci dënn waja taxaw ci ko dënnam di wax allah akbar la ilaha illa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye waaye sëriñ bi di ñu ñëwal ci ci mom manam jambar gim mu doonoon xam-xam bi nekk ci mom ak ngor gi wala bi aji ñak la won ne nañ ko ko ku ñàkkoon la mom moom sëy naa waaw moom sëy naa di talib gis nga li mu delloo ba yent bi saasam genn jox ko dem bayiko fa heure bi jot yent bi rombu leen ba genn gaay yi di xaran ba 3 heures du matin xam nga lu leen lu leen lu leen lu leen yee bàyyi ma ganaar la yàlla yónni mu noddu ci seen wet séq kurkureet ku jii nga dégg mu koy wax ndekete ganaar day noddu ak a xam heure bu ñu ko defee ñoo ba see mu pët pët pët pët yëngal du ngoy rek daat noddu yëpp ni ku ni nii rek soo su dugg sa nga fatamu ma ni ki la nii la nii kenn ki def ko nii waaw man tamit nangam nangam nangam lan la ñu wax ku def lii bañ naa dama dugg ci léegi sëñ laaj bi na fi fekk gis ko ak na mu digg doomu guddul woon lool te gàttul lool waaye yonte bi ko sut kaay tiim ko gis ne bi witt ñu ne attention mbiru mbàjj mi ak xàcc seeni jaas yi Aliou jóg xool tiin xool leen lu mu doon loo def fii mu ne maa fi ne de ana Mohamed mu ne ah, génn na de kañ la génn mu ne moom mu ne léegi ci bunt bi de fii kay jaaru fi ñu ko xoolee seen bopp yi ku làmb sama fekk kol ko suuf bu toy xëpp nek ca ndeysaan seen addi mo mo def di kraw taraxu lo len gatchel lo len yent bi sal sam dem e seen ali ni ibn abi talib saw salam bi way juróom génne aduna juroom ben weer ci biir way juróom papam génn aduna yaayam am ko tek ci deux cent après aduna ali alimat sadi ya ko nampal bàyyi seen ali ibn abi talib moo jël yonent bi comme fils adoptif yar ko ci à l'âge de huit ans mook moom mook moom waaw waaw ma salaam salaam ak ak bàyyi fi naat yi ba yonent ba yonent bi ak dugg cinquante ans góor gii moo ko téye bàyyi fi naat yi moo tax sëñ Tuubaa ni wa bi xaqi xaaidil mujaahidina علي الذي أهان دينا حق خائد المجاهدين علي الذي أهان الدين بحق خائد المجاهدين علي الذي أهان الدين بحق خائد المجاهدين علي الذي أهان الدين ما أخرى ملا dangay xool qualité moom ba tax sëñ tuwaay ko tudd benn preuve keroog bi soxna Fatimatu bintu Rasul mbaa yëg nga ne saxaaba yi waroon yonente bi saa salaam ku ne tegoon na ci bët ci moom doomu yonente bi ndax taar ndax sell ndax set waaye éducation de base am kenn mënu ko wax ñi nga xam ne ñoo sës ci yonente bi saa salaam ku ne sànni na ci baat ba ci Seydina Aboubacar ba ci Seydina Omar ku ne sànni na ci baat yàlla soo sam leen déglu leen ma amul bis xëy xëy xëy jibril bët asamaan juróom-ñaar cëpp na fekk rasulullah fi mu toog ci tàkkusaan bi salaamaaleykum ya rasulullah mu ñàkk tooy xib bu jibril daan ñëw ci moom alayhi salaatu wasalaam fay jibril ba noppi ne fay leen ko jibril tey sa melokaan bi tey da ngaa leer Jibril mi ngi ñëw habillé wu yére yi weex xeeñ parfum boo xam ne misk la ca àjjana la ko jëlee ba noppi mbégte mi ak rëy ji yéen di ko xool ba yàgg ko Jibril monsieur moom tey moom tey moom am na lu xew da da nga bég lu xew moo ko goro ne ko ne ko léegi laa jóge ci mariage bi fi mu doon dag takkee soxna Fatou Bata sa doom malaaka yaa ngi koy sibile ca ca aras ca kanam suñu borom. soxna Fatimata sa doom ji suñu borom may na ko Aliou sa rakk ji nee na nga maye ko fii xoolal ma loolu xam ne yàlla mooy yàlla mooy goro seen Aliou ak Fatima yàlla yàlla mooy seen goro takk ko ba ba pare ba julli bëgg ci ànd ak jóge ca kaw ñoo yéen seen bi ne ko te defas nañ sëy bi léegi ca kaw léegi nag yow nee na nga yëgal ko waa suuf te def ko fi nga toog nga xam ne maanaam Aliou suñu yónnee kàddu ci Fatima yonent bi musu ko woo ñeneen nañ ko suñu borom jéggi leen may ko àll yi ko sëñ Tuubaa ni wa mu jaa inna la si ahana danaa tagg jàmbaar ji ndax mérite bopp mu am suñu waree dem wax xam naa ni day mel léegi waxtu xoj ñu ngi ci jàmbaar bi tedd ndax sëriñ bi dina dugg ci ngor gi mu nga xam ni li muy doon doon jàmbaar yàlla dogaloon ci moom li ñuy wax naan loxoom jotuloon ginnaaw. Mhm. doon ko fan yee. Mhm. doon doon doon doon dabar mhm. teewut a lépp reer. nga xam ne moom ñi amoon amoon na natt boobu mu seen naat yi. bu ñu bu ñu ko taal bi mayee. def ko deuxième partie wala deuxième partie bi. sëriñ bi dina ci ñëw. ci kooram googu ak doomam ya. la nga xam ne moo ko moo ko moo ko moo yëpp dana ci ñëw. incha allah rabbi bu ko defee sëriñ bi da ci indi ay leeral bu baax a baax ñu gën cee jàngi bu baax a baax moom seen naat yi. ndax mbolem sahaba yi nga xamne andal ngeen sa yem saram li muy jige jige yem sans saram bokku na ci ñi gëna ñak hmm ma ngi jàng benn téré gis ko muy muy wax ni mom wax say naal ni balawtu surufa dëhri hmm. sittina ajjatan jatan hmm. mu natuna sabah di koy jamono hmm. ma xol jamono natu ko jarbu ko juroom benn fukki yoon daal ni waram arbaadu diini khairun min al ghina walam ara ba'dul kufri sarru min al faqr hmm. waaye bi ma nattoo jamono xool ko ay yoon yoon hmm. gisuma ginnaaw am diine hmm. lu gën am am xoom waaw waaye ginnaaw weddi yàlla gisuma lu gën a yées ak ñàkk wax na dëgg nga xam limi tet tet am nañu ko constaté xool xool jooju wax ju rëy ndax ndax ndax ndax ndax ndax néew doole nee na ginnaaw bu ginnaaw am am ginnaaw am diine waaw gisuma lu gën a am gisuma lu fi gëna am valeur am kaade min al kufr sal sal mena nat na ñak way <laughs> hmm? mo kéfer moo wu fi ne boo ñàkk da ngay ñànki léegi nga weddi yàlla léegi nga weddi yàlla wa kay wa kay xam lool moy moy li fi nek non kon ma ñëw seen ali batay tey ba tax suñu tuwaa di ko tudd ni mu ko tuddé xam nga dafa and ak yonent sallallahu alayhi wasallam ñu dem ci ajj nono ci fat u bi bi mu eggee ba nga xam ne suñu borom tabaraka taala may na rasulullahi alayhi salaam doole maa ngi tëb sax fa la ñu demoon kat ndax tàmbali woon naa keroog bi gaa yi jaayante taali def la mu def ba pare bañ jot ndam li ba dellu siwaat am na kenn ci saxaaba yi koo xam ne ni ñokkat tiim yonante bi ni ko yow la yàlla yónni yaa tax nu bàyyi suñuy ndey bàyyi suñuy bàyyi ca lañ ne abandonné suñu am am jat suñuy los dox la suñu bopp ñëpp gëm ni loo wax dafa war am waaw nga wax lu wax ju réy jii ci màkkatul mukaram biig ci guddi ni suba jàmm ñu mobilisé wu tàgg suñu waa kër ñu xëy yóbbante nu kenn ku ne wax lu sa sëri ca laaj na boo ñu bisee noonu war a andil waaw dañuy ñëw ba fii wañu ko yalang yalange suñu loxoy kese dellu ca suñu soxna ya ak suñu doom yi naa leen eggunu ab saa wax na ko Seydina Omar mi limi bax bax kérok né né yent bi rek waxtan jot na. al alxaqu ma Omar. Hmm. lo koy wax nang ko set dala hmm. naan ndax yalla ko wax nga ne waw jamm ñu boné mako wax mu ne kon amna ci xalaat mom fu la jëlee ko yàlla joxoon moom. Hmm. ñooy delloo kër ga. yent bi ni tek mu ta ton ndax moko wax ñepp ni tek ay teg sa def ci bax gi mo ne ñoo ñew fegg ko. moo war gestu ko mu ne ko dana ni woon dañ dem màkk te ànd ak jàmm mais existé wul ci benn bis néew da tay de est-ce que yent bi da bu suwaa ci altine ji mu ne déedéet mu ne ko waxul woon altine dana woon dañ dem màkk rek at ma tukkeegut yent bi nooyi waat Abubakar ko ci génne <laughs> xoolal di xoolal loolu xoolal loolu ndeysaan bi ñu loolu toog seenaat yi ne ñetti jóg taxaw xëcc ne ko nan dem lu jot yàlla def ko man xam naa ne li nga wax ni teg naa ci sama bët man xam nga an maa ngi néegu xam-xam waaye yaay buntu bi ñoom nag bu ngeen dugg ci biir joni joni daan xam waaye man xam naa ni nga wax dina am waaye cannabis bi amee ba Makka ànd ak douze mille soldats yu armé wu nag tëgg nit ñaa ngi woy dugg bi Makka nga xam ne bu see ba jub Makka dañoo ñëw waxtu timis yonent bi sallallahu alayhi ci dëkk bi guddi nan campé lu wër Makkatul Mukarram fukki mbedd jëmmuwaay yi route nationale yi génn Makka douze la maanaam benn porte bu nekk ñoo jóge ci koox gox booba bu doon fii nu nekk tey ñuy seetaan bi àdduna bi dafa yaatu waaye dëkk bi nga nekk kon dañu fa bàyyi ko ñu bàyyi ko Dakar ñu bàyyi ko Touba ñu bàyyi ko Kaolack ñu bàyyi ko Ndiarène ñu bàyyi ko barab sàngam nga jóge foofu bu ñu bu ñu dëkk bi un kilomètre avant nañ tànt foofu fanaan fa te nañ fa reere ñu nekk nañ indaale seen yóbbal gaa yi taal mban mbatti njàngu ya yëpp di tàkk ndeysaan muy diglu seen son yu neex ya di julli ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waa Màkka gis leen foo xool ni waaw waxoo fii benn espérance daw xool dem ne ah man ne mbooloo maa fekk fee ak doole suñu duggee ci dëkk bi kenn mën leen téye benn egg na ko keneen jóge benn barab ne Rasulullah ñu ne sama ànd ak bu duggee fi kenn mën leen téye ba waa Màkka gépp kii Abu Sufyaan ne kon naka mu ne xanaa gaaw maslaa ñoom bala ñoo dugg ci dëkk bi ndax ñun kat yonent bi ñëpp xam nañ dañ ko bañ a bëggee na ko dugg si ñenn ñi tere ko waaye dugg seen bi wut naag bu njëkk bi lañ ne ci moom gaaw wax ko ne ko soyé le bie wani na dugg ta daal ak jàmm benn problème dafa xew donte du dugg ci noonu nan maslaa ba mu génn fekk ko fa mu nekk maslaa Abu Sufyaan ci waxam keroog daa làqatu ndax bi Omar dugg see xaritam la woon nag ndax ñoo bokkoon ba ñu nekk ca caaka njaay ja bu njëkk <laughs> Omar tub bàyyi ko bi Omar dugg see def contrôle visite xool dëkk bi la ko roog mu ne ko wax waaw kii saawaaji mu ne ko wax soo kon yaa ngi ci liberté rek seen man ne ko maa ngi fi de tey dañ ko dugg for force mu ne ko wax xaaral ma laaj ma waaw ne ko ñaar rek mën a am war ci saa mbaam mii nu dem nga ñaari loxo tuub mënoo ko ma la fekk dëkk bi maa la ko may daal def néew mu ne ko loolu amul problème waaye mën ngaa xam moo jàkkaarloog yonent bi te mu ne ko loolu dem Omar ko togg ci maam indi fekk yonent fi mu toog entre timis ak gée ko am mbaaj bu ñu fekkente ne jox ko loxo yoon ne ko nit ci yëngal loxo ne ko xanaa kii Abu Sufyaan mu ne ko ne ko sa bëgg jàmm rek dëkk boo ñëwee kër gu la neex duggal bu ma jógee fii léegi naa informé waa dëkk ba doo fa fekk lenn la naqari te am naa fekk la waaye ragal na jaasi ak mbooloo Omar keroog moo fëgg bopp bi ne ko na nga wax dëgg de mu ne ko dëgg laay wax yonent bi ne fekk ne ko naa la sagale ku dugg sa kër mucc ku dugg kër ku ne ne mucc na fekk seen ali moo ko ni xam naa ko ku bëgg daraja la moom ñoom mun a koromp fii ne boo ko jaayee rek moom ko yéen dafa fekk ni ko boo dee neen gi yow laa ci kanam ngay bopp bi yaa ko yaa koy jiite waaw yaa ngi kii ko wax mu daw ak si du topp nag yëpp publicité ni waaye na jàmm am bu coow am na juboo am nangam nangam koo si mu ne kaay bi sama kër ba jàpp ñu dugg yonent bi sallallahu alayhi di toj xërëm yi ñetti téeméeri xërëm ak fukk ak ñett mu nga fa ñu tudde ko ay yàlla yàlla ay ñoom Musa ay ñoom Laata ay ñoom Maanaat am ñoom Soxay bu nekk naa fa ci biir bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jàng aaya ba bismillah qul jaa al haqqu wa zahaqa al baatila inna al baatila kaana zahuuqa of ci yar bi bu ko ne caw benn xërëm rek yar bu ndaw la bu toll ni bant bale waaye bu ko jàngee ba duur ko rek xërëm ba day mel ni bii nekk Ndakaaru ca kaw lay xàbbi ko di toj di toj di toj ba ca ba ba mujj si ci kaaba gi boobu ay xarit wër kaaba gi gaa yi boo wër kaaba gi xëy na doon toj ba mu des bi yuutu jot na ko waaye am na expérience bu mu bëgg a wane mel ni ku ko jotut mu ana aliyu mbooloo na pour wax ne doole aliyu ni ko bi tànnee ci biir mbooloo mi ba may ko doomam tànn ko ba fanaan na ko ci néeg ba tànn ko ba bàyyam yar ko tànn ko ba ne mooy mooy butu xam-xam tànn ko ci qualité yu ne ana seen Aliou mu ne maa ngi mu ne ko kaay tungoom ma maw àjj xeram bi Aliou daw ba ne nii yonent bi ko xool ba yàgg ne ko ah Aliou soo ma tungoomee dootoo jug mukk ba duna tukki seetal ma loolu te xool ci jëmm Aliou kopp bi ne ko sa xaw ma kan de waaye da nga wax yow moom xool ko ko ko ko mukk looy def ko kaay ma tungoom la foofu lañ mës a gis sëriñ bu tungoom tool bi ah ko def léegi ci gaa yi sa sëriñ ko tungoom moo nga xam waaw gaa yi dinaa yaa ñàkkul tool bi wasa bi la yem lañ lay wax <laughs> waaw ok ndeysaan sëñ Aliou yent bi sëgg mu yëg ca kaw mbagg ya yent bi fitteeg moom boo taxawee jox seen Aliou yar bi ko aji ko seen Aliou fawee yar ba jàng ay bismillahi rahmani rahim qul jaa alhaqu wa saxooqa albatila inna albatila kaana saxooqa ëf ko ci yar bi ni ko caw xiram bi mu xabar ci ko ca kaw bi ko yonente bi wàcce sa sam ba ne cëpp suuf Aliou moo waat ni billahi lasi la ilaha illa huwa waat naa ci yàlla mi taxawal asamaan juróom-ñaar daanuwul lal suuf teg fi jaww ji bi ma yonente bi tugoomee ne damul sëgg ngir sama bopp baa ngi laal asamaan si nee na bi mu toogee ci bopp ci mbagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam boppam ali ñu ne ko lu tax nga defee mu ne parce que sama bopp mi ngi laal asamaan boo ko defee nii mbëkk asamaan si waaye yonent na ci barke ali moom rasulaay tungoo moom moom marta bu toll yonent bi gàddu ko ci mbaggam te gàdduwul kenn ali moom nga xam ne moo doon bëkk bëkk asamaan si bi xaqi xaaidil mujaahidina ali na si ahana diina maa ngi ñaan yàlla ci barke ali mi nga xam ne mooy diri sa xare bi te xare bi mu ngi si biir si am ndam tamit moo dimbali diine yàlla taas na ci barkeem suñ tubaab ngay ñaan ci moom. Mhm. kon mbokk yi day mel ni première partie bi dañ ko daal yemale foofu rek wala ñu àgg xoos tuuti sëriñ bi ñëwuñu ci. aay bu tedd boobu di yuufoone bi nasri. Mhm. waaye yaxaafoon yawman kaana sarruhu mustatira. boo ko defee incha allah rabbi mhm. ci Seydina bi comme que saaba yi moom ku ci nekk say say mbir lool dañ ci loo xam ne rek na ko mën mën a mën a mën a mën a mën a jëriñoo nga dégg maanaam njàngale mu tedd mi nga xam ni sëriñ bi def na ko ci diggante Seydina Aliyu ak Yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ni jaar nañ fa baree baree baree baree bare am na ci loo xam ne nag seen diggante képp la ñoom ñaar li ko sëriñ bi waxee sànq ñetti xam-xam yi nga xam ne moom la ko suñu borom jox benn bi moom yàlla képp la mm-hmm. benn bi moom saxaaba jullit ñëpp ko bokk mm-hmm. waaye benn bi nag moom Seydina Aliyu rek mm-hmm. nga xam ne moom la ci dugal muy xam-xamu baatin boo xam ne Seydina Aliyu wax na ni faatixa bii rek mën naa cee taalif téere yu toll ci boo ko sëwoon ñeent gëléem maanaam duñu duñu duñu dox waaw duñ ko attan waaw ci faa ci faatihatul kitaab nga xam ne moom géej la woon moom seen naal yu ci ci ci ci ci ci xam-xam nga xam ni euh, ku suñ borom defal nañ la tawféex ak ubbeeku ci lépp nag ba tax ñu koy tuddee karamallahu wajhahu nga xam ne suñ borom dafa doon jëmmam fi ne booy seetaan sax film sahaba yi nga xam ne ñu moom boo xoolee image am duñ ko wane déedéet déedéet dañ koy warmal ak sayyidina salaam ndax xam naa ni karam na wajhahu googu mooy mooy mooy tax loolu nag kon mat naa xam xam kan mooy Aliyu xam ni bokk ak yéen saa moom mooy bàyyi uh, Asan ak Useynu Abu Sufyaan Muxtaari sayyidina waaw gis nga bàyyi doom bàyyi taxam damay doom bàyyi Aliyu ala faqtiira ni aman mu jarraw gis nga qualité bi mm-hmm. soo gisee keroog bi ñaari doom yi feebare moom Seydina Ali ibn Abi Talib muy Seydina Al Hasan mi sama turando ak Seydina Al Oseynu xam nga benn tur la Al Hasan ñu bëgg ko ñaareel Hasanayni muy ñaari Hasan mooy Hasan ak Oseyn Hasanayni la tudd xam nga ñoom ñun pour ñun ay seex lañu waaye ñoom duñu ay seex loolu siiw nag magante nañu juróom benn weer waaw ba léegi da ngay jàpp ni ñu bu dee léegi seen jamono loolu mënul ne am doom teg ci six mois amaat doom xam nga loolu lu yéeme la pourtant ñoo bokk ëmb waaye yàlla doxale noonu mais bi asal di judd aussi lu matagut moom la ngeen tuddee prématuré la xaw ma Assane kese ñëw jamono Ousseynou continué ba teg ci 6 mois doo ko feeñ xam nga booy seetlu aay bii di wax sëñ Aliou sëñ Aliou raw raw yëpp dafa am borom kër dem ci biir kër borom këram dem am fa juróom benn weer am doom six mois nga sëy ko am doom mbagg mu jóg topp dëkk bi di séetam bi kañ la ko fi takk kañ la fi am kañ kañ la fi jur nopp dalootu na ku gis nen ni nena ngi coow li jàpp koo jàpp suuf rek comme ni ko soxla yi waxtaane lu tax juróom benn weer la am borom kër bi xaw a gëm wax ji ndax ay bokkam yépp ak ay famille nee nañ ko sax jabar ji daa ëmb àndaale boobu seen Omar moo fi ci ne ko mën a amee mu ne mënta am moom it loolu la yi kon seen mën naa nekk de doomi juróom benn weer mën naa am yéen na naa am foo toog mu ne yàllaa ko wax xoolal loolu xam nga suñu wax sama ci alxuraan ni jigéen am loolu la wax defe naa ni hmm? dafa ne nampal leen seen doom ñaari yu mat loolu la wax ñaari mooy at mooy lan kon fukki weer ñaar mooy benn at nga nampal ko fukki weer ak ñaar mooy benn at nga nampal ko soo ko boolee douze fois deux ñaata la. douze fois deux. Mhm. vingt quatre. vingt quatre mhm. mooy trente. Mhm. mooy trente. six. six mois yooyu nga moo génn ci vingt quatre yi. jigéen na ne ko ndax yàlla mi di juum moo leen nampal leen seen doom yi ñaari at kon ku nampal ñaari at ëmb juróom benn weer mooy trente mooy salaasoo la soxla mooy fanweeri weer. dégg nga alxuraan. waaw hmm? <clears throat> <laughs> nampal leen seen doom hawlayni kaamilayni parce que lu tax mu ne jigéen am lu wa fas wa fisaluhu salaasuuna sahara comme at douze mois la beneen at douze mois nga boole ko muy weer quatre mois weer quatre boo ko génnee ca salaasuuna sahara six mois moo ci des kon jigéen na ëmb juróom benn weer nampal ñaari at muy fanweer weer seen daal yi mu indi ayib neen kon xanaa seen bëri dafa gëm ñu waaw mu ne ko juróom benn weer kay da koy ëmb nampal ñaari muy fanweer weer rek kon kii mooy borom xam-xam Seydina Ali ibn Abi Talib même nii nag moom la ñaari doom feebar médecin médecin dem nañ ci yonte baa ngi ci kaw suuf de salaw ñaan na ci waaye feer bi dana dana wér sangat wérut ngasum reen wérut médicament wérut amul lu def ñu xëy xëy xëy jaaxle ndax ni ñu bëgg seen ñaari doom yi ñoom ñaar ndax booba jamono moom rek lañu amagul asan wasilu yonent bi alayhi salaam bëgg ñaari doom yi sët yi ba nga xam ne moo ko gën a doom bi mu jur eggoon na ci bëgg leen moom rasulullah moom asan wasilu daana julli ji julli farata xale yi daw yëg ci kaw ci loos wi mu ne fa nemm ba xale yi wàcc mu doog a sikki xam ne ñun léegi yàgg nañ ci fi ne boo xasee kàbb bu sa doom jege nga ba wax ko te xale bi amul bakkaar xale yi di yëg sa kaw amul bàkkaar fii nag boo doon julli ñu saw la sax yow amuñu ci bàkkaar ñoom yow yaay seet nooy defal sam saw ñaari doomi feebar addi yu seen médecin dem na ci ñaan kat ñaan kat dem na ci amul solution ci feebar bi te ñaari xale yii lay am ñoom ñaar muy asana waseynu ñi dara ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ëllëg yonent bi sopp leen lool gëj leen a gis eggoon na ci li muy tëlee tëlee génn ndax ñàkk jot daana xëy kër ñoo seet si leen alayhi salaatu wasalaam parce que xale yi déplacé dem ci bopp ñu toog ba yegg nii solution am na mooy ban mun ko dellu ci yàlla suñu borom soxna Fatimatu mu ne waaw mun ko mun ko préparel ma suba sama xëdd ma woor wax sama borom ni sa da nga ñëw nag loo bëgg a wax sa borom mu ne ko ñaan ko xale yi muusuñu ci tamay ñoo ñu dund awma nag maanaam action bu ma war a def ndax awma alal ju ma war a lelee awma alal ju war a jëlee ordonnance waaye yàlla sama borom soo xale yi wéree décidé naa woor ñetti fan sante la ko muy ordonnance yi ma waroon jëlee ci hôpital bi def naa ko ñetti fani koor sant la sama borom tabaaraka taala boo wéralee sama xale yi